asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen seetaan seen seen YouTube euh, DBT ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci ne. tey nag dañu fa séenee waxtaan ak yéen ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la waa États-Unis génn waaye aussi ñu waxtaan ak yéen tuuti rek ci Israël ak Palestine ba tey xam ngeen ne fan yi élection présidentielle am na États-Unis Kamala Harris ak. Euh, Donald Trump ñoom ñoo doon xëccoo les démocrates et républicain waaye nag gis nañ ne républicains yi ñoom ñoo gañe démocrates yi ñoom ñoo ñàkk loolu lan moo ko waral te démocrates yi kat ñoom ñoo nekkoon favori muy Kamala ndax moom moo ne woon favori lan moo tax kon surprise bi am lu ba am actuellement ñu bari surprise lañ ko def waaye ñi ñi analyser tey seetantal xam nañ ne du surprise lan moo tax du surprise dafa am état yoo xam ne ci àdduna bi ñoom pareeguñu pour am président présidente c'est-à-dire président bu jigéen état yooyu États-Unis ci la bokk France ci la bokk kii di Sénégal ci la bokk tey bu ngeen seetloo Sénégal fii bu fekkee dafa am ko présenté wu te muy jigéen da ngay gis ne ci ndaara yi lay bokk cinq premiers à chaque fois dana ci lay cinq ndaara yi ci lay bokk Anta Babacar Ngom mii sax yàlla def na ba moom euh, bii moom bokkul ci cinq daara yi waaye ñi mas a présenté wu Sénégal di jigéen ñëpp ñoom ñooy mujjee ci liste bi dafa am dëkk yoo xam ne culturellement ak diine ni mu fi amee doole loolu du leen permettre ñoom ñu jigéen di ko jiite. États-Unis noonu la mel. États-Unis du diine bi mais capacité jigéen ñoom moom la ñuy dute ndax dan naan. Jigen capable amul force bo xamanteni ni dana ko permettre bu demee au niveau international di mën a comme ak ay ku melne tay Poutine ku melne tay ay Macron ku melne tay euh dirigeant coréen bi ak Chine nga xamné tay bu fekkone Jigen lañ jël manam ñu nekk fofu ci rapport de force c'est-à-dire lu jëm ci comme par exemple ay accord ay wax yo xamanteni wax yu dëgër lay doon Jigen. ñu ne dafa gaaw a lâché États-Unis ñoom loolu la ñu ne jigéen dafa gaaw a maanaam pression bi bu ëppee ci moom rek mën na bàyyi te kon su boobaa mën na bàyyi fekk ne euh, dafa jox faveur adversaire am looloo waral États-Unis tey ñoom loolu dañ ko sóoraale ba moo tax da nga naan ñoom pare guñu pour am présidente maanaam président bu jigéen loolu bokk na ci li nga xamante ni Kamala Harris ñàkk aussi nga jël lu mel Europe tay bo xolé France euh, Marie Le Pen bi muy dem euh, deuxième tour mom ak Macron français yi bëgguñu won Macron bëgguñu ko fenn mais da ngay gis né ñoomit dañoo parégul pour am président présidente bu jigéen moo waral ñu sanctionné Marie Le Pen ñu sanctionné Marie Le Pen daat fay bàyyi euh, Macron ci ñàkk pexe boo xoolee États-Unis buñ delluwaatee ci élection yi la weesu nga xam ne diggante euh, Hillary Clinton la woon ak Donald Trump nii la demee woon ñii ñi dañ ne Hillary Clinton mooy gagné ñu dem ba au dernier moment euh, Donald Trump gagné ko ci ginnaaw gi ci la Joe Biden ñëw daal di gagné ki nga xamante nii moom mooy euh, Donald Trump kon daal en résumé da ngay gis ne États-Unis moom bokk na ci état yi nga xam ne pareeguñu pour far li nga xam ne moom mooy jigéen léegi nak fal googu amna ay conséquences ginaaw bu ñu waxee ba paré conséquences yoy nak en Afrique ak en Europe Donald Trump ku ne xam na ne moom jubluwul ñi nga xam ne ñooy africains yi da nga gis ñu naan Nicaragua ña fa nekk di ay euh, ay étranger bëggono a dugg biir États-Unis ñom ñepp ñi ngi ci risque actuellement ndax Donald Trump daf leen a fas yéenee lolu man de sama analyse dama nan ndokk li tax man nan ndokk moy ndax dana permettre africain yi président africain ñu gëm seen bop ba mëna tok topoto seen réew waaw ndax su fekke da nga bayyi sa citoyen muy dem ni di dem di dem di dem rek bayyi sa say say euh, compatriote ñi nga xamne yena bok réew nga bala ñi def États-Unis ñu def leen jëf joju mu ñaaw monde bëpp gis ko su baba mën nañu conscient ñom fassiyene gëm seen bop nak dadi Euh, développer seen réew ndax Donald Trump li mu toog ci mandaam bépp mandaam bële passé avant Joe Biden di ko gagné premier mandaam bi mësta teg tànkam euh, fi nga xamante ni moom mooy Afrique kon africains yi war nañoo am seen jub jomu bopp te bañ a dékkandiku ci kenn te xam ne ñoom force bi nu yore yàlla mën na leen a jàppale bu fekkee ne euh, gëm nañ seen bopp waaye tamit beneen conséquence bi mooy OTAN OTAN mooy maanaam mbooloo moo xamante ni ay militaire la ci neen ko expliquer nga xam ne OTAN mi ngi juddu presque ci fin de deuxième guerre mondiale bi benn traité boo xam ne moom lañ defoon ba États-Unis ak européens yi biñ ko defee te boobu euh, Stanley ma nga fa woon booba euh, diri euh, dirigeant européen yi ngay dégg nii nga xam ne général de Gaulle boobu deuxième guerre mondiale bi après moom moo ñëw nekk jiite France waaye nag fekkoon ne euh, fekkoon ne France booba général de Gaulle dafa dawoon dem euh, euh, ah, dafa dawoon dem Angleterre waaye Churchill mi nga xam ne moom moo dirigé woon li nga xamante ni moom mooy Angleterre moom ma nga fa woon ci lañ formé woon OTAN boobu nag pour mu nekk benn mbooloo moo xamante ni maanaam pour jàppalante seen bopp ci biirum armo waaye nag ñu gis ne États-Unis comme moom moo gañe woon guerre boobu dafa yóbbaale woon ay France ay euh, Angleterre ñoom ñëpp da a yóbbaale ba ci jamono jii nga gis ne guerre Ukraine bii OTAN da ciy participer lu bari nga gis ne France demul de mais day yóbbante arme yóbbante ay avion de guerre en euh, Union européenne ñoom ñëpp ñu def loolu OTAN boobu nag xaalis ba fay dem ak mën ñu koy dundee moom la Donald Trump do yàgg a wax européens yi ne leen su ma ñëwee loolu dana dakk seen yéen a xam OTAN Amérique du fa nekkati du ko financé loolu nag dafa tiitloo ku mel ne France nga xam ne loolu su amee risque day am ndax bu boobaa Poutine moom mooy nekk le roi d'Europe su boobaa européens yi dëkk yu ndaw yooyu nga xam ne ñoom France Angleterre ay Allemagne donte sax ay dëkk superpuissant lañ ci arme mais nag Russie ëpp na leen junni yoon États-Unis bii rek bu ko Russie ëppul Amérique gépp boo leen boolee Europe gep bo len bolé Russie moo len ëpp Europe gep bo len bolé bo bolé Allemagne Italie Espagne Angleterre Danemark Suisse euh, dekk yooyu yëpp so len bolé Russie moo len ëpp fouf mat na len ñett ba ñent kon da ngay gis ne kon Russie puissant la nak euh mom su fekkee ne États-Unis dafa retirer wu ci OTAN wala mu wañi côté financement bi mu def ci OTAN loolu day tiitloo ñi nga xam ne ñooy français yi ak ñoom surtout France nag ba tax na loola waroon média français yi boo gisee ñu doon diaboliser Trump loolu lañ doon bañ di xew a yëkkati Joe Biden loolu kase la woon kon conséquence bi nga xamante ni Trump falu na mën na nekk ñaar conséquence en Afrique ak conséquence aussi en Europe kon xam naa dañu ñëw ci deuxième point bi muy Israël Israël dañoo gis boobu ba léegi ki nga xam ne moom mooy Benjamin Netanyahu continuer moom di def crime de guerre moom lañ koy tuddee di rey ay palestiniens di dem di bombarder territoire jàmbur territoire boo xamante ni Liban dafa nekk dëkk boo xamante ni dafa souverain maanaam moom moom boppam beneen moroom dëkkam ñëw attaqué ko loolu nga xam ne règle ak loi ak loi yi nga xamante ni ñoom ñu tëgg Nations Unies yëpp la Benjamin Netanyahu violé nga xam kon fii ñu toll nii Benjamin Netanyahu tout nekkatul sax ci ci logique li nga xamanteni ni faagaagal euh, euh, Hamas ak euh, Hezbollah du loolu de surtout Hezbollah mom ci logique lu mu nekk moy lan réaliser ses rêves Mon rêve am lan la won yag nako avant muy tok moy fexé ba israéliens yi nekk ci monde bi ñu mu pousse euh, euh, palestiniens yi ñu génn bombardé ay bande de Gaza yooyu yëpp su ko bombardé ba ñoo ñu dem mu raafale kër yi indi fa ay colons cest à ay israéliens ñu toog fa nekk fa moom loolu mooy désiram dafa bëgg continuer di coloniser li nga xamante ni moom mooy Palestine loolu nag ba fa mujjee ke ci perte mooy Israël ndax xam nañ ne guerre xaalis moo koy def te xaalis guerre comme Donald Trump ñëw na te moom fa séenewul financer ki nga xamante ni moom mooy fu séenewul aussi aidé ki nga xamante ni moom mooy euh, Israël moom Donald Trump def loolu loolu nag kon day nekk beneen troisième conséquence gannaaw Afrique tey mi ngi nii ci Asie nga xam ne moom mooy euh, Israël ak Iran et autres kon ñu gis ne falu Donald Trump gii am na côté ndimbal tuuti ci Palestine ndax dana permettre moom bu financé wul li nga xamante ni moom mooy euh, les israéliens kon su boobaa danañ lott ci xeex bi te danañ dellu ginnaaw Benyamin Netanyahu woon nag ñu gis ne moom mi ngi gën a continuer def jëf ju bon te jëf jooju muy def nag lim bëgg a réaliser mooy lan xale bu nekk da ngay am rêve te moom rêve am moo doon fexe ba israéliens yi gëna law ci li nga xamante ni moom mooy Palestine occupé seeni territoire dëkk fa loolu nag moom lay réaliser nii moom la bëgg moo waral nga gis ne fan yii mu limosé benn ministre am la leen jotale du ko wax parce que nit ñu bëri dañuy dem ba comprendre ne kii il a des ambitions personnelles ay fi boppam ñu bëgg a réaliser la mais ce n'est plus l'Israël contre Palestine mais mbirum boppam la loolu nag li ci kanam raw lu kon mbokk yi foofu la ñu yem tey ci chronique bi di leen ñaan ngeen gën a abonné seen seen YouTube DBT sant leen gërëm leen jërë ngeen jëf